la la la la la la la la la la la la la la la la ñu ngi nuyu mbokk yëpp ñu fi toyu ñëpp kenn ku ci nekk sa tur ak sa sant e, di am mbégte bu baax a baax ci teewaay bi ndax concours ba mu commencé ba tey metti woon na lool waaye li muy yàgg-yàgg nga xamee ne ñetti weer ak lu topp diire na ko lépp sénégalais yi ñëpp ñu ngi ànd ak ñun ci concours bi di ko siiwur di ñu daamu ci bépp côté kon ñu ngi leen di sant baax bàyyiwuñ kenn ku ci nekk ci turam ak sant kon que dañuy wax ne tàgg dafa xam damay jàng xasida mu kabadatu fi maqaamil xasida laylun على كتف النهار سيسعته وسلام منتهم ليشتعل الغد ليل مجازي الملامح يغتدي عطشا لأن الأبجدية توعد سكب الفراهدين قبل دخوله لنظل في عمق الجمال نعبد ضاق الزمان عليك قال بما رأى أهل الهوى جمع وأنت المفرد لمحوا شبابيك الخيال تحسسوا جدرانه شبقا فينزل فتنزلق يده وهناك تحسبني اللغات مسيحها وتظل تسلبني رؤى وتجدد وهناك تحسبني اللغات مسيحها وتظل تسلبني رؤى وتجدد حدقت من الحرف حيث خواتم بما لم يكتشفه الهدوء أرجوك يا ربي عدوت لموعد قدمي تخف متى يخف الموعد عشرون عاما والمسار متاهة أمضي إلى ذاتي وذاتي يطول بعيده